xibaaru Tijaaniya mi ngi tàmbali fii ci Tiwaawan ak El Hadj Malick Sy ci jamono 1890 moom nag moo nekkoon premier xalif Tijaaniya fii ci Tiwaawan moom sax mooy fondateur euh, li nga xamante ni euh, mooy gàmmu annuel bi am fii ci Tiwaawan di célébrer li nga xamante ni mooy euh, bés juddu yonente Muhammad sallallahu alayhi créé na ko 1902 euh, waaye nag man damay sukkandiku ci tees bi nga xamante ni moom la El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh wax moom li mu wax moom nee na El Hadj Malick Sy mi ngi ñëw Tivaouane 1897 moom moo fondé xadara bi mi ngi faatu le 27 euh, juin 1922. Euh, ren jii nag alhamdulilah ci la ñuy célébrer les cent ans de la disparition del Hadji Malick Sy pour caractère jàngalekat la jàng jàngale musul deñ di ko nekk kon jàngalekat la woon nekkul woon li naan sëriñ tarixa euh, tarixa li mu nekkoon mooy véritablement sëriñ daara moom nag bi mu làqoo atum 1922 euh, ki nga xamante nii mooy taawam bu góor sëriñ Khalifa Ababacar si moo ko wuutu ci xilaafa bi Euh, ba le 25 mars 1957. mooy le mystique bi nga xamante moom mooy le xalif ki nga xamante nag moom nag moom moo ñëw nekk sëriñ tarixa parce que El Hadj jàngal na nit ñi ba pare force mu am kilifa. moo tax suñu Babacar bi mu nag mu xam nit ñi dañu war a am kilifa nit ñi dañu war a am tarixa mu nekk ñëw nekk sëriñ tarixa. kii nga xamante ni mooy sëriñ Mansour Sy mi moo wuutu sëriñ Babacar si waaye moom ñeent fan rek la def ci xilaafa gi. laata mooy wuyu ji sunu borom. moom nag poète bu mag la woon mystique bu mag la woon euh, waaw ni naa am na benn xaal bu sëñ Mansour si borom daal di am mi ngi ko jëlee woon ci moom il a été un savant aussi mais très mystique. nga xamante ni mooy sëriñ Abdou Aziz Sy Dabakh moo ko wuutu ci xilaafa gi kooku nag reeñam euh, mën nañ jàpp ni yàgg na loolu Sénégal yi bëri miin nañ ko gannaaw bu mu nekkoon ab njit bu am charisme am tamit éloquence ci discours am. mu nekkoon li naan régulateur sociale chaque fois bu tension am chaque fois bu crise amee chaque fois bu révolte amee chaque fois bu grève amee mu woo Sénégal yi wax ak moom waaye mu nekkoon maamu ñëpp nekk kilifa ñëpp ñëpp déggal ko fu mu ñaanee Sénégal yi ñëpp nangu ñaanam ñëpp fekk si ko lu ñu bëgg. moom nag Serigne Mansour Sy borom daara ji moo ko wuutu kooku tamit ñu ngi koy xàmmee ci li nga xamante ni mooy éducation ak formation xale yi ci diine l'islam ak euh, sunna yenente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme son nom l'indique borom daara ji parce que jàngalekat la woon parce que moo yoroon daara ji parce que moo nekkoon le recteur de Tivaouane donc sëriñ daara la woon mooy son sa principale caractéristique. sëñ Mansour si nag euh, bi mu fi jógee ki nga xamante ni euh, mooy sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si moo ko wutu ci xilaafa bi. le véritable universitaire intellectuel mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al euh, le cachet aussi parce que parfois ñu naan borom roq bi parce que il était dans son coin daan na at daan naka nañu koy gis mais intellectuel la woon parce que boo ko mu ni lu ma waroon wax yëpp wax naa ko parce que il était un grand conférencier. ci atum 2017 nag la Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin euh, yéeg ci xilaafa gi. il a beaucoup servi la nation ci tous les plans euh, moom nag yàggu fii. Euh, six mois la fi defoon parce que euh, dundam yëpp de ko servir xadara bi da ko servir nation bi. moom tamit juróom benn weer euh, la fi nekkee woon xalif général xilaafa bu gàtt waaye xilaafa bu am sens lañ nemmeeku ci reeñam ki ci mujj nag mooy Serigne Babacar Sy Mansour mooy actuel xalif général de Tidjane kooku tamit ñi ngi rafetlu ni nga xamante ni noonu la yëre tarixa bi fii ci Tivaouane yàlla na yàlla yàggal taxawaayam yàlla guddal ay atam mu gën fi yàgg euh, ci kanamu njaboot ji muy sëñ Babacar Sy Mansour mu nekk nag ku discret euh, moom laa wax mosuma dégg ñu ni wax bu ñaaw bi kii moom moo ko wax ñu ngi fi nekk parce que kilifa li fa li koy sëy yàlla waxoon Seydina Muhammad rek da ngay jéggale di jëllale lu mu dégg muñ ko lu mu dégg lu ko metti mu muñ ko yërëm njaboot ji yiir njabootam moom moo fi nekk ba léegi nag yàlla na ko fi yàlla yàggal juróom-ñeent xalif dirigé nañu euh, li nga xamante ni mooy euh, euh, tarixa ya fii ci Tivaouane juróom-ñeent suufi ñi nga xamante ni bokkuñu profil waaye ñoom ñoo bokk mission bi nga xamante ni mooy di wéyal jàngale bi nga xamante ni kii di Seydi Hadj Malick jàngale na ko ci diine l'islam ci yoonu Muhammad sallallahu alayhi ak ci yoonu sunu borom subhanahu wa taala Thank you.